ñun nag suñu kàddu gi ñu ngi ko yëkkati ci turu njabootu Cheikh Sidil Muxtaar waaw rawat na nag suñu kilifa muy kilifa kër gi muy Serigne Moustapha ibnu sëñ Sidil Muxtaar ñu ko comme si Moustapha Matilay ndax jotaay bi ci ndigalam lañ koy defee ndax de kër gi lépp lu ñu si masaan def ci ndigalam ci lañ koy def waaw kon lii ci ndigalam lañ ko defee tey liñ def fii liñ def fii nii boo demee ci Touba Guy Mbind képp ku askan Serigne Baara muy sëtam yaa ngi ko def ca guy mind waaw ñun ñu teew fii du ko def ñaareel ba it ñun ñaareel ba it ñun ku ne ku ne xam-xam ni suñ diggante ak Cheikh Baara wante loolu man naa wax ne loolu amul solo ndaxte ban xamante yàgg na lool ban ànd yàgg na te it mën naa Serigne Baara moo boole boole Serigne Cheikh Matalay moo ñu boole boobaa léegi ban day ànd mën na fanweeri at. ñu bokk yarandoo léegi lii am ni tey ginnaaw bañ ko ñaawloo muy muy lu ñaaw nag état dafa tooñ ki mu tooñ mooy njabootu Serigne Cheikh Mati Lay tooñ njabootu daara ndax Cheikh Baara ab jullit la ab taalibe la tey sëriñu daara la kon état tooñ na njabatu njabootu Cheikh Sidil Muxtaar tooñ na waa daara tooñ na it mbooleem kuy sëriñ te kurus te Cheikh Bara borom kurus la loolu ñu ko xam-xam nañ ko te it état li yàgg na yàgg na ko bëgg mais amuloon fu mu jaar fii mu jaar ni ba jàpp ko état bu xamoon ko Cheikh Bara coow li Cheikh Bara mën na ko saafara bu ko Cheikh Bara coow lii ban potoxlu ba jàpp ko Cheikh bu utilisé woon capacité Cheikh Bara ak li ko si borom may Cheikh Bara coow lii kon am si réew mi moom mën na ko saafara waat nag xamul ki mu téye ñu ngi ko wax nag leen wolof na day wax ni tuuma alali gor la nattu jullit moo ko moom kon lii ab nattu la mu mu jàll mu daan suñu kaw ñu ngi koy nangu ci nangu bu rafet du ko muñ loo suñu borom ndax suñu borom wax na ni inna laa ma sabirin du dégg bi bi topp mooy tuuma alali gor la ndax Cheikh Bara ku ne xam ne as gor la ab sang la ku yiw la lii nu ko tuumaal ba jàpp ko it tuuma rek la waaw bu nekkoon ab saay saay kenn du ko tuumaal mais Cheikh Bara ku ko xam xam ko ci mbaax xam ko ci ragal yàlla xam ko ci ci ñeme nit ak it dimbale ak nit ak yaatu ak ubbeeku mën naa wax sax ni ak ubbeekum sax ak mbaaxam moo waral lii am tey moo war a lii am kon lii ñu ngi koy lu baax a baax a baax may wax nag état nag ki jàpp nag. ab sang la jàpp ab jullit la jàpp ab taalibe la jàpp nit ku baax la jàpp nit nekk nit koo xam ne ku amal njariñ waa Sénégal la ku amal njariñ waa Sénégal réew mi lim réew mi lim fi def ba ci état bii sax ñu ko jàpp tey jii am na ñoo xam ne dafa neen loo xëy ni buñ ko fayoon ab cëram buñ ko fayoon lam leen labal kon dafa fanaan wante nag ah lépp loo gis day mel ni su mborom moo ko dogal day mel ni su mborom moo ko dogal wante it non du tee dinañ ko muñ muñ loo ko suñu borom mais nag ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax nag di ñaawlu jàppin bi ndax Cheikh Bara ku ñu xam ne nekkul delankaan nekkul awuyu nekkul kàccoor buñ ko soxla woon buñ jaaroon fan war a jaar mën naa dem wuyu si leen te dara du xew benn garnaat kon du fi tàkk mais liñ fi fi ñu jaar ni ba jàpp ko day mel ni ñoom liñ bëgg asal ci réew mi nit ñi du ko wax loolu du leen mooy loolu ñoom du la mooy mukk bis bu nga ko tabaxee ba mu am ci réew mi liñ bëgg noonu ñoom du leen mooy kon ñu ngi ñaan di ñaan bu baax nag état mu xam baax ki téye xam ni ab sang la nit ku yiw la ab julli la ab taaliba la tayit njabootu Cheikh Sidi Muxtaar la téye ndax Macky Sall boppam laa moom bu fayoon bu fayoon bu fayoon dëgg dëgg dëgg li ko seen si si Muxtaar lebal kon du laal njabootam te loolu ñun ñëpp xam nañ ko amul fu mu jaar ak moom 2012 lépp la ñu fekk ba 2014 ba 2019 ba ni ni mu génnee àdduna lépp la fi la ñu fekk amul lu mu ko jàppalewul amul lu mu ko taxawul kon nag bu ko sëmbi bu sëmbi dëddoo mu taxaw nii ak njabootam loolu mu ngi metti sëñ Moustapha trop di metti njaboot sëñ baar gépp nag di mett njaboot gi ñu ngi koy metti lu ñu ko metti lu baax baax a baax baax na loolu la amal suñu kàddu jërë ngeen jëf